woon démb salaamaaleykum xam ngeen dañu nekk plus parce que euh, dafa dafa wàccoog li mu daan def. dafa bàyyi la mu daan def. dafa bàyyi li mu daan def. <laughs> Bachir li nga wax c'est important. <laughs> waaw parce que. Ah. Euh, bi ma fi nekkee. Hmm. et même avant may jël équipe bi bi fi ñoom bismil nekkee. ak Mamadou Sow ak. ak ñoom Mamadou Sow ak. Lune Diop ak Lune Diop bi ñu fi daan nekk. Bonaventure Carvalho. Euh, dañu daan jël expatrié mais daaw ñu bàyyi locaux yi. loko yi loko yi kenn mosu leen bàyyi eh, nit ki bala nga naan da ngay uti ci biti seetal li nga am d'abord sa kër parce que loolu moom moo jëkk andi handicap bi bi ma bàyyee équipe bi loko yi bokkatuñu woon dañu jëli lépp ci biti parce que maa ngi bàyyi en 2001 je crois eh, Tafa moo ma remplacé sama. Tafa Gaye Tafa bi ma remplacé li ëpp ci effectif am ko daan jële ci biti c'est bien di nga am ay joueurs yu xarañ di nga am ay joueurs yoo xam ni xëy na kii mais doo am équipe. Mhm. parce que ñooñu ñun ni ñu fa nekkee ñun xamuñu ko. ak niveau ba ñuy joué. niveau ba ñuy joué. parce que nekk ci biti taxu a sélectionnable. justement parce que soo xoolee ba suñu équipe actuelle bii nii bii nekk Côte mhm. mais les locaux sont les meilleurs. Ah, justement parce que locaux yi am nañu championnat régulier te yaa ngi koy suivre. les locaux sont meilleurs. waaw or boo ko seetee léegi loolu amatul yaa ngi jëli ci biti. Mhm. même fii daan nañ ko def mais fii bàyyi nañ ko léegi dañuy jël fii. Mhm. ba pare dog woo ñi ci des ñu ñëw complété. mais Badji dama gis beneen. Mhm. man xam nga beneen ban laa gis. Euh, yàgg naa ci basket bi. bi ma Ablaye Seydi wax kaay jàppale ma ci basket bi fekk ma rentré de Kaolack en 1975 boobu léegi maa ngi di ci su mu ci gisee entraîneur bu ma xamul dama naan kii kan parce que pour man entraîneur dafa war jóge ci pratique expérience pratique nga defar ko entraîneur ñu joué ñëpp duñu nekk entraîneur yu baax mais entraîneur yu baax yaa ngi jóge ci ñuy joué mais léegi dafa am ay entraîneur yu nga xam ne da nga jëg ji rek ñun kii entraîneur la foo jógee fu entraîneur bi jógee ñun la INSEPS professeur d'éducation physique optionnaire basket gëm nga lool loolu am na ci xam nga euh, entraîneur sa xam-xam théorique dina am mais itam sa vécu basket am na solo. trop ci sa coaching. man pour man vécu basket bi d'ailleurs mooy li door mooy mooy mooy socle bi d'abord. loolu moo ngi ci socle bi vécu basket bi la euh, nga boole ko xam-xam boo xam ni moom nga jëlee sur le plan théorique. parce que bon niveau ba pare nag am grade de joueur. parce que man je ne comprends pas. quelqu'un m'a un jour Abdoulaye Diop jox équipe nationale football man li du ma ko jël. waruma ko jël xam nga pourquoi mosuma nekk international yow bas bi ngay lay jox équipe nationale dañ ñi say joueur tu es quatre fois champion d'Afrique ñu ne ah kon moo ñu gën a garaaw waaw respect parce que non parce que loolu loolu loolu c'est important très capital day nit ki mhm. il faut mu wet la ci dara ah li mu lay wege mooy li mu li mu li mu xam parce que kooku lii nga wax léegi ah. euh, mën nañ ko firi ci terrain yi est-ce da ngay ñëw fekk équipe di entraîner ngay wax ak joueur bi joueur bi xamul yow yaay kan. Mhm. daf lay cati bët rek dem yoonam. mais bu entraîneur bi toogee neex est-ce que xam nga ki lay waxal kan la kii li mooy diw diw diw diw gagné na fi lii gagné na fi lii kii xam nga da nga ko doon xoolee ba cati bët. Mhm. mais da nga taxaw xoolaat ko. oui te li mu lay wax di nga ko déglu parce que di nga ni kii war naa ci mën a jëlee njëriñ. Mhm. bon mais loolu Euh, bu dee yow amuloo vécu doo ko mën a am. ci jour wax nga dëgg. waaw Basirou Badji laa leen indi. su ngeen di wut entreneur bu gën a titré wala sénégalais bu gën a titré fëgg leen néegu ASFA balaa dugg tey trois titres de champion d' Afrique avec l' ASFA un de champion d' Afrique au Maroc avec la Côte d'Ivoire un comme entraîneur avec l' équipe nationale du Sénégal euh, Bas Côte d'Ivoire dañ ko daan dóor. le Sénégal a gagné les dix premiers Sénégal Côte d'Ivoire. <laughs> les dix premiers Sénégal gagne les dix non euh, euh, neuf neuf victoires contre une parce que Côte d'Ivoire moo ñu gagné en 85. 85 en demi-finale à Abidjan moo ñu gagné en demi-finale 85. Mm-hmm. mais depuis mënatuñu door Côte d'Ivoire c'est-à-dire les cinq derniers Sénégal Côte d'Ivoire ont été gagnés par les Ivoiriens qu'est-ce qui a changé. bon les hommes ont changé la mentalité a changé et sans compter aussi. que nous ne partons plus comme on partait avant. wax nga ko les préparations ne sont pas les mêmes. wax nga dëgg wax nga ko léegi. waaw wax donc loolu yëpp dafay dafay dafay bokk ci li nga xam ni moom mooy sonal équipe bi. Mhm. sport collectif li ma ci xam mooy collectif moo koy joué. d'abord mais collectif pour mu am il faut ngeen nekk ensemble yu bari. Mhm. am na leneen loo xam ni aussi il faut que ñu seetaat ko bu baax ci Sénégal bu fekkee am nañ fu ñu bëgg a dem équipe. kenn du ko tàggat ci benn année. ci benn année. déedéet te ñun du ñu tàggat sax ci année dañuy tàggat ci ay ay ay semaine ba weer. bu mmh. baree ba bari. Mmh, mmh. mais équipe boobu. nga jël entraîneur bu bees teg ko ci équipe bi. ne ko utal say joueurs yu bees. parce que kuy ñëw day andi joueurs yu bees. bu ñëwee andi stratégie moom ci boppam. parce que ba léegi. Euh, direction technique wala euh, fédération amul. Euh, schéma tactique boo xam ni moom la moom. Mhm. donc entraîneur bu ñu indi moom mooy indi schéma tactique mhm. mais ba dee chaque année nga changé entraîneur mais di nga changé tactique aussi joueur yi ngay andi itam foog ñu changé. foog ñu changé. Euh, kii te yow psychologie joueur yi nga xamoon. Mhm. ak ñii ngay andi bees ñoom xamuñu la yoo xamuloo leen. vous vous découvrez. Bass tu as été champion d'Afrique en 97 à Dakar. match d'ouverture Nigéria gagné ñu. am ko en finale gagné pour la défense du titre en 99 ngeen dem Angola. Mhm. de retour d' Angola ci la gars yi nangul équipe bi ci yow parce que tu n'étais pas d' accord avec certains joueurs lan la woon désaccord bi. voilà désaccord bi euh, am na parti boo xam ne duma ko wax ci télé. <laughs> te it du la ko wax. Ah, euh, parce que quand kilifa la waaw te aussi am naa respect ci joueurs yi nga xam ni euh, defal nañu dara Sénégal. dañu xamoon xawoon am différent au niveau des états bi ngeen demee États-Unis bi ñu demee États-Unis dans le cadre de cette préparation de cette coupe du monde. ci préparation bi fa la désaccord ba jóge. fa la désaccord bi jóge mais feeñul dañ ko nëbb mais tëkku nañ ma. joueurs yi tëkku la. tëkku nañ ma man nangu relever défi bi ñu dem Grèce ñu jouer au championnat du monde Grèce. au championnat du monde Grèce bi ñu demee jouer joueurs yi lañ ma reproché. Hmm. wax nañ ko ci kii bi ne j'ai été trop juste parce que damay yemale ñëpp loolu la ñu wax ci soleil bi parce que ki ko bind. c'était un journaliste bu àndoon ak ñun. waaw bon mu ne de euh, li ma li ma liir daal ci li ñu wax ni moom moo tax tànk man maa ngi à la xam nga tudd ñu sama tur. tànk yaa ngi à la tête dootuñu ñëw en équipe nationale ñëw en équipe nationale. mais xanaa kon problème mu profession les ex les expatriés. ñoo wax loolu. ay expatriés lañu. que da nga leen yemaleeg locaux yi. waaw bon or man daam moom principe. loolu dafa daan am en équipe nationale clan wu locaux yi ak équipe nationale ak pro ak man mosumaa xam loolu mosumaa gëm loolu tamit. mais ñu la tëkku. ñi ma tëkku ay professionnels mooy ñu ci biti. ñi ci biti dañu ni euh, dama leen yemaleeg ñëpp te bu ñuy def sama kii ñoom xam nañu basket ba war naa di leen laaj ak kii ak yow ba ma naree toog ba ma naree toog bay laajte. Mm-hmm. ma joxe équipe bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñaay ñoom laay laaj. Mhm. parce que joueur li ma xam ci moom. Mhm. parce que man joueur laa woon. te mosuma ñëw naan entraîneur bi lii nga ma war a defal. Mhm. li joueur joueur joueur moo ko laaj. la la war a def. wax nga dëgg donc bu ñëwee ci terrain bi. na muyee soo mayoo. man même bu ma nee ku ci nekk laaj naa la cinq minutes. cinq minutes li ñu ma la laaj mooy nga ñaq. def li nga xam ne moom laa lay laaj ci terrain bi. tant que yaa ngi koy def doo fa jógee même bu cinq yi cinq minutes yi passé mhm. mais nag bu tey joxoo ma ko man mosuma yore équipe américaine française kii équipe Sénégal lañ ma jox mais bu ñu ma joxee équipe Sénégal lépp loo xam ni war naa ko mën a def pour mu jox ma résultat. waaw dinaa ko def. te du ma ci tenir kon naan kii local la kii américain bu ma xasee nekk équipe équipe nationale rek mhm. équipe laa yor seetatuma ku ku ku bokk feneen ak ku bokkul feneen li may seet mooy rendement bi ci terrain mais Badji pourtant yéen temps bi di nga naan gagné en équipe loolu amoon na fi base bi ASFA mhm. ñu am ay pro yu jógee ci biti ñoom Gaucher mhm. ñoom Adidas 1 et 2 ñoom Pape Moussa Touré euh, problème boobu daawul am avec l' équipe nationale euh, yéen temps bi ngeen di jouer amul woon ak yéen non léegi ak xale yi day dafa commencé am. no amoon na ci suñu groupe bi ma fa nekkee. Ah. amoon na parce que tout simplement dafa am un mooy li ma la wax li ñu li ñu dafa am la ko lal daal. dafa am ñoo xam parce que pour ñoom. Ah. Euh, j'étais trop militaire. parce que gisatuñu ci man entraîneur ñu ngi gis ci man militaire bi. waaw mais rigueur boobu baax na. non moom laa leen wax dama ne leen. <laughs> waaw yéen fi ngeen di nekk aux États-Unis hmm. entraîneur bi bu waxee mosul leen ci teg baat. waaw bon pourquoi léegi ngeen ñëw ba fii Sénégal ngeen bëgg a yab entraîneur. ma ne ko bu fekkee daan ngeen ko def ak ñeneen man duma ci bokk. man je préfère te man nee naa leen que man man yore équipe nationale ma nekk équipe nationale ak ma ñàkk ko yore moom moom laa yemale. Mhm. parce que bi may jël équipe nationale du man maa nommé sama bopp sama résultat moom ma indi équipe nationale. dama def sama résultat en tant que joueur. Mhm. def sama résultat en tant qu'entraîneur. Mhm. ci ñaari club. en tant qu'entraîneur à l'ASFA et. et au Sibac. oui man maa leen yëgal première division en filles. Mhm. à Ziguinchor yëgal garçon yi en filles ah, en garçon à Thiès. ci laa jóge dellu ASFA. ASFA amul lu ma fa gañewul ak. Euh, euh, euh, joueur comme entraîneur waaw. joueur d'abord waaw comme entraîneur nekk naa trois fois meilleur entraîneur du Sénégal. Mhm. jël fa aussi duble mhm. am naa deux rois. Samba Yaba ak Assane Ndiaye. Assane Ndiaye. donc ñooñu ñëpp amoon naa leen. Mhm. donc loolu moo tax ma ne leen bu ma man ma nekk équipe nationale ak ma ñàkk fa nekk laa yemale. d'abord li ñu may fay sama salaire u la. yow bi amuloo woon salaire. amuñu salaire. armée salaire armée rek nga am laa am. donc tu faisais du moom moo fa nekkoon ba bi ma fay jóge sans salaire. sans salaire bénévolat lañ fa doon. champion d'Afrique sans salaire am na benn année dañu waroon dañu waroon grève sax. waroon bañ a dem euh, Praia. pour jouer ji zone 2. Mmh. toog nañu ak ministre bi depuis euh, dix huit heures ba une heure du matin te on devait quitter le lendemain à huit heures déggoowuñu on était obligé dañu newoon du ñu dem mais il a fallu benn responsable moom moo ñëw toog wax bay jooy. pour ngeen dem. waaw ne basket bi mériwul méritéwul loolu ñu mujj bàyyi dem. Mm-hmm. boobu ba léegi kenn fayul kenn. bénévolat pur et dur. je ne sais pas après sama départ lan moo fa am ndax ñu ngi fay wala fay ça je suis pas. yow bi nga jógee bi nga jógee euh, à la défense du titre champion d'Afrique 97 99 on a perdu le titre bi nga ñëwee. Euh, fédération na mu àttee c'est différent boobu ak euh, ak les joueurs pro yi tax nga jógee équipe nationale naka la fédération àttee ak itam. bon fédération bi duma ko condamné du ma ko kii parce que xam nga euh, au niveau des équipes euh, les nominations se font par le directeur technique. Mm-hmm. directeur technique bi moo ma woo. à l'époque c'était Busnel. non Busnel bu fa nekkoon du benn bi. Busnel 99 ku nekkoon directeur technique Badji Bassirou Badji. Maguette Maguette euh, Diop. Mm-hmm. Maguette Diop waaw. et nga di su fa Busnel nekkoon du demee nii. non ça j'en étais parce que contestation joueurs yi xam nga joueur euh, fonk ñu entraîneur local. surtout joueurs yi nekk ci biti. moom laay wax dañoo mus a yab entraîneur local. pourquoi waaw mais dañu mais boo seetee au fond ils ont raison mais man mënuma fayee ko dix mille franc mille franc di di di di nangu entraîneur bu dul fayee ko dara wala buy fayee ko dërëm. moom pro la bénévole nga. bénévole nga. donc tey moom bu ko neexoon tey moom. mais mën nañ la respecté ak sa valeur sa palmarès. mais justement sama palmarès moom moo tax man ma nekk fa parce que man faalewu ma kenn temps bi ma fa nekkee dama ne lenn moo mën a am joueur bi seetuma li mu am duma ko ñaan duma ko topp bon xëy na am na ay entraîneur yuy dem ci joueur yi di ñaan kii man du sama du sama jikko parce que yarewuñu ma sax. Mhm. d' du man musa dem ci joueur ne ko defal ma lii may ma lii mais li ma seq ak moom. Mhm. moom laay def. Mhm. entraîner laa ko laa laa ko war a def naa ko entraîner wax ko dëgg laa war a def naa ko wax dëgg. Mhm. dama ci seet nag fi mu jóge parce que man nee naa xaw ma joueur bu jógee États-Unis bu jógee France bu jógee kii joueur sénégalais lañ ma jox moom laay toppatoo. wax nga dëgg donc képp koo xam ne dugg nga ci sama carcan di nga respecté li nga xam ne moom laa bëgg a def boo ko mënul respecté man ak yow mënuñu ba ñu taal. oui oui ou nga dem baa ma dem. Bassirou Badji ngi nii 97 ba mu jógee ci góor ñi ba léegi gagné c'est le dernier entraîneur national à gagner une coupe d'Afrique euh, te profilam ñu ngi fi ancien pratiquant il a été quatre fois champion d'Afrique avant de glaner un cinquième titre comme entraîneur kon defe naa ni dellu si ci ancien joueurs yi di leen former pour entraîneur moo gën a wóor Bassirou Badji constat bi ma def en équipe nationale danaa ko def avec ton club l'ASFA l'ASFA aussi ne gagne plus alors que l'ASFA euh, servait de mamelle c'était la base équipe nationale dañ daan wax ASFA plus ku jóge fii ku jóge fii ku jóge fii la preuve ASFA est trois fois championne d'Afrique xam nga en club on a cinq titres de championne d'Afrique ASFA 3 police benn Jeanne benn mais ASFA aussi gagnatul waaw kaw ASFA euh, c'est un peu particulier. ASFA, c'est un club particulier au sein de la Fédération sénégalaise de, euh, de basket. Parce que d'abord, amuñu petite catégorie. ba tey yàqul dara waaw boobu foofu laa jëm si. man danaa danaa non non defal naa foofu laa jëm si. danaa laal fi mu fi ma yaakaar ni fa la yàqoo. jëm fa la fa la <laughs> waaw. Euh, bu njëkk. Ah. joueur bu baax. Ah. daan na dem arme. waaw pour ñaari pour ñaari raison bu njëkk bi mooy Asfa da daan tukki rek donc joueur bu nekk dans un club da daan ñëw parce que Asfa d' abord tu as le temps de travailler. Euh, mais dama ci am beneen. xam nga en football Asfa nekk na fi trois fois champion d' Afrique en quatre ans. 71 72. ak defe naa 74. trois fois. ñëpp dañ naan Jaraaf Goregia Asfa génn. en football ngeen dominer basket après mu am recul. parce que sa génération ñoom puy fay deer Ibou Niang mm-hmm. defe naa jeexaluñu woon mm-hmm. dañu découragé woon taxaw xam nga pour pourquoi mm-hmm. les performances sportives au sein de l'ASFA n'étaient pas récompensées du dëkk on ne récompensait pas les performances sportives non seulement ñi ci biir découragé nañu mais civils yi ñëwatuñu parce que civils yi ñu daan ñëw di dugg à l'ASFA pour def ko yoon et comme les performances sportives n'étaient pas récompensées civils yi dematuñu tey jii le football est en deuxième division le basket est devenu un basket de série. Mhm. lu ci sa avis. non loolu am na ci li nga wax ni hmm. am na ci j'en veux pour preuve. Hmm. bi ñu demee Bangui mooy événement bi nga wax ba 79. waaw mais bi ñu demee dañoo sàcc suñu matériel. ba man bi may ñëw sax ca ca raxe nañ laa jóg dugg ci avion bi. maa ngi ànd. moom laa lay wax. maa ngi ñoo ànd Bangui. très bien wax naa tout à l'heure du Amadou Bellali ambassadeur. waaw à 18h moo ni moo ni Bokassa. génneel sénégalais yi ñu toj ci stade bi di leen sànni toj. de 18h à 22 mais avant avant histoire boobu sax ba ñu dañu sànni toj. waaw dañoo agsi le mat le le le jour même. dem entraînement teg suñu bagage si biir kii bi dem entraînement ñu ñëw fekk ñu daj yëpp sàcc suñu bagage. yëpp mais bi ñu ñëwee dañoo recensé ku ci nekk li nga xam ne moom nga ñàkk. fay nañ leen. ba suba kenn fayu ko mooy li nga wax léegi. mooy motivation bi ngay wax noonu. waaw deuxièmement. Hmm. au niveau de l'avancement au niveau de beaucoup de facteurs. Euh, asfa ni mu bindoo dafa jafe pour ñu mën a kii xam nga tey ñun bu ñu nekkoon ñeneen tey. Mhm. dans un autre pays ñun ñëpp ay officier la ni mais man war naa am grade asfa. Badji man la man la man la. waxuma sax yéen yéen yéen xam nga dégg nga officier. waa man war naa nekk première classe. <laughs> mais moom laa lay wax. bi ngeen di nekk champion d'Afrique 79. ca banque yi maak ngi yéen a ànd. Mhm. bañ ñu bañ ñu tëjee ci lëndëm ga waaw di ñu dóor rek pendant quatre heures de temps waaw ba gars yi ne la kii bi ngay wax ci kii bi ñu naan bu fekkee dafay reportage bi ñu naan nga waxal wolof waaw Marius Ndiaye mi ñu tuddee saal bi waaw moo ma doon jàppale sama matériel ñuy toxu ci biir saal bi ñuy dóor rek <laughs> ah loolu yëpp loolu 81 aussi am na doj à Bamako. à Bamako amoon na doj bi ñu bi ñu leen mënee <laughs> loolu yëpp xam nga euh, boo ko seetee. Ah. li ñu li ñu waroon am comme récompense. Mm-hmm. amuñu ko. Mm-hmm. mais effectivement ça décourage. sa décourage. waaw mais xam nga bu doon ci jamono bii léegi. waaw kon duñ sax àgg foofu kon xëy na loolu sax euh, résultat dafa jóge. wax nga mais jamono boobu. Mm-hmm. mentalité yi du benn. wax nga yi lenn lañu xalaatoon xalaatuñu xaalis. xalaatuñu leneen mais jom la ñu amoon boo xam ni ñun fi ñu jóge bala ñu fay jóge foog ñu am résultat bi ñu bëgg. missionnaire ngeen woon. très bien. kon bi ba Badji nekkee joueur mi ngi nii ci li muy wax mission ba Badji moo jonkoon nale ci seen gauche ak équipe bu ASFA bi nga xamee ni Bamako la 1981. ASFA di fa jël coupe d'Afrique des clubs mu nekkoon ñetteelu coupe d'Afrique am après bu 75 bi ca Caire bu 79 bi ca Bangui république centrafricaine ak fii ci Bamako Badji moo jonkoon noonu euh, ci seen gauche nekk nag ci wetu Serigne Der bi nga xam ne tey jii dañ koy décorer moom Serigne Der ca Côte d'Ivoire ca euh, coupe d'Afrique bi nga xam ne mu nga ca euh, Côte d'Ivoire après Serigne Der Babacar Ndoye ci wetu Babacar Ndoye Lamine Diop. ki jonkan ci gauche Lamine Diop di Pape Ndiaye ñare taxaw euh, ca gauche ba Boubou Faye moo nekk noonu ci wetu Boubou Faye Goré Daffé après Goré Daffé Ibou Niang moom tamit gagneur qui a longtemps joué en équipe nationale Mbaye Sembène nekk noonu ci wetu euh, ci wetu Ibou Ibou Niang euh, Mbaye Sembène gannaaw Mbaye Sembène Mamadou Diop qui est passé professionnel en France Badara Ndoye longtemps joué en équipe nationale tout comme Pape Ndiak Mbodj moom tamit ànd nañu ba taay équipe nationale jamono yi nga xam ne ba tey ASFA dafa daan nekk ossature équipe nationale de basketball du Sénégal fii mu ngi nii euh, biñ ko joxee Coupe d'Afrique bi mu ànd ci ak waa ASFA euh, ci gauche am noonu di Serigne Der mi nga xam ni moom laa wax ni tey jii euh, dañ koy décorer ca euh, Côte d'Ivoire mook Pouy Faye Bassirou Badji Coupe d'Afrique bee nekk noonu ba tey ñu ngi à Bamako en 1981. fii mooy bi mu demee di jëlee coupe bi avec le ministre malien des sports ba tey ci Bamako fii nga xamee ni mooy ñetteelu Coupe d'Afrique gu ASFA. fii nag man maa ko tàllal micro hmm? mu ngi nii Basirou Badji eh, di wax eh, sénégalais yi fi ñu jaar ba jël coupe d'Afrique bi moom mi nga xamee ni moo di capitaine u ASFA en 1981. léegi ba mu fa jógee raaya bi mu mujj amaat daf ko amaat ak équipe nationale bu basket en 1997 comme entraîneur. Basirou yi l'un de sénégalais les plus titrés cinq champions d'Afrique trois ASFA. deux en équipe nationale bii comme entraîneur bii comme joueur bu ñu nekkee ci campagne bi mel ni mu ñu delloo si ko war ko déggaat pour li mu représenté pour tout ce qu'il a donné c'est le dernier entraîneur gagnant voilà 97 ici à Dakar Bass merci d'être venu. merci à vous. Euh, daañu dajewaat. ci beneen yoon peut-être ci amicalu basketteur bi nga xam ne war nañ ko taxawal. pour ngeen jël li ngeen yelloo ci basket bi vous les anciens basketteurs mbokk ñëween démb indil naa leen kenn ci ñi nga xame ni ñoo jox Sénégal titre yi ñuy wayee Sénégal ci bitim réew Bassirou Badji ASFA et équipe nationale du Sénégal mbokk ñëween démb jërëjëf li ngeen may laaj rediffusion bi c'est le mardi di leen ko surveiller entre 13h 13h30 merci bonne continuation